tamxarit bokk ci weeru muharram nekk weer wi njëkk ci atum jullit yi ñu di ko wax ci arab ashura ñu jàpp ko ci fukkeelu fan bi ñu war cee màggal lii di tamxarit bari lool ay ngëneel ba tax ñu di ci sàkku di julli di ci woor seeti ku feebar raay bopp jirim ak yeneen ak yeneen sëriñ Abdou Lahad Niang xam-xamam màcc lool ci wàllum diine mi ngi àddu di ñu xamal njariñu tamxarit weeru tamxarit nag yu bari da cay yoo xam ne mënut xaj ci benn jotaay jumbul waaye lañ ci mën a tënk mooy te ci lool mooy fukki fan yu njëkk yi dañoo bëgg lool ku koy wor maanaam fukki fan yi muharram yooyu wala ñetti fan yi muharram dañu bëgg ku ko wor ak fukki fan yi ñëpp dañu bëgg ku ko wor euh, te loola gën a yokk ak jaamu yàlla lañ ci jublu benn ñaareel ba mooy ci biir fukki fan yu dafa am xissa bu yéeme boo xam ne da ca xew te histoire du ko fàtte mukk mooy ci leen rey li ëpp ci alu bayt rasulullah alayhi salaatu wasalaam te ci ki ca gën a fis muy imaamu shuhada di Xuseyn ibnu Ali ci fukki fan yii ci ci muharram ci lañ ko rey ca Karbala muy xissa boo xam ne saa bu ñu la ko nettalee na mu demee say ronkoñ dana tuuru keroog bi ñu ko reyee dagg bopp ba bul Kubra di Zeynab bintu Ali dafay yuuru ba fa baatam yam mu woo naa Mouhamad Ousseynou ngi nii ñu rey ko ci àll ba ay doo ay say doom a ngi nii jàppaleen bu mu jafeel yow ki yàlla yónni kon xissa bu siiw la boo xam ne nii eh, dañ koy fàttaliku ci biir fukki fan tamxarit yi waaye bu ñu ñëwee fii ci biir senegal nag tamxarit bu ñu ko waxee mooy juróom-ñeent fa dafa am lu ñu tuddee tamxarit ak tamñarit waaw tamxarit bu ñu ko waxee mooy juróom-ñeenti fan bi guddi googee bés sedd fukk bés fukkeelu fan ba guddi gu la tuddee guddi tam xarit bis ba ca tegwaat la ñu tuddee tam ñarit tam nag euh, daara amoon na ca paar boo xam ne daana ko ci daana ko ci def daara boobee nag bokk na ca ya nga xam da ko jaraan daan def yenn yi ay aada la mooy la ci gën a fes ci wàllu diine mooy koor mu woor woor moom fes na ci maanaam nga xam moom ñëpp bokk nañ dëpp ci ne bëgg nañ ko ko woor am na ci yeneen yoo xam ne ay borom xam wax nañ ko ci yi yiñ ciy defaat tusngalu bi ak lewi ko gi mel noonu ak si ziyaara ci borom xam-xam laal ci bopp jirim waaye yi nga xam ne ay aada yoo xam ne moom ndax bi yéene buñ ko waxee buñ ko waxee sëñ bi bi mu koy nettali ci biir téere mi da koo nettali ci siixa boo xam ne ni siixatu tamrid la man bu dee siixatu tamrid nag mooy loo xam ne nii dafa wax ne waxees na ne nangam am na ñu ne day dàq nangam day def nangam sëñ bi wax na ko noonu pour wan la ne ko ci faral di def ba noppi ah, leeral ci ay illa illa yi tax ñu di ko def bu dee laal bopp jirim mooy nemmiku ko jàppale ko ngir jirim dañ ko war a jàppale ziyaare borom xam boo xam ne day jëfe xam-xamam mu la ci yéen mënees na ko illa mu am na yoo xam ne dañ koy def ca cosaan la aada woon waaye dañ cee dugalu ci bokkut jaxasoo sol góor góor yu sol colub jigéen jigéen ñi sol colub góor ñu jaxaso loolu moom mardita bi ak yeneen yi ñu ciy raxaat ci biir ñu ne bu ñu xëyee boo lekkee ba suur da ngay këpp waaw këpp këpp ñàkki ñàkki kers la ak ñàkki tegin ndax loola mooy la yàlla defal la teranga nga war na ko ba mu jeex foofu këpp bool bi nag loolu du du du du du ngor du fulla du fayda ak itam ñu ne léegi bokk na ci li nga xam day lay may wiir gi mooy boo boo boo lekkee na nga ci bàyyi benn kolkol boo xam ne kolkol ba man da nga koy jaxasee ndox boo xëyee nga sëlmu ko loolu boo boo ci ñàkk ji doxee ñàkk yi ba diw loolu saltale loo xam lislaam dafa koy tere yooyu boobu ak ñu ne la boo xëyee da ngay xool weer wi maanaam jant bi da ngay jàkkaarloo Fatima tamit muy fóot foofa waaw yi ay aada yoo xam ay xuraafaat la yoo xam ne dara lu ci sax amut bu ko defee ne ci biir euh, tamxarit li nga xam ne moo res na ko cee jàngate moom li ci jiitu ma jullit bi jàpp ne euh, ñëwal beneen at a ngi nii boo xam ne ngi tàmbali te xamut buy jeex si dana ko fekkam loolu lu mat a xel la ndax man ma weeru tamxarit lam lay jox mooy fukki weer ak ñaari nee na bu xeet ci sama dund ma tàmbalee yeneen fukki weer te fukki weer ak ñaari xamu boo xam dana jeexam déet loola bu bu ko nit ki xalaatee ci xalaat boobu dana gën a farlu ci jom yàlla tam te moytu lépp loo xam ay yàq la li may mujj na mooy lu diine jàngale nañ ko jël tayam ca leneen lu aada andi na lu ca rafet ñu jël ko la ca bon ñu delloo ko borom aada yi si tam xarit daan si faral di nemmeeku lii di tàjj boon lislaam nanguwu ko waaye kii di Gora Ndiaye di xam ne ne aada la yu fi maam yi bàyyi. dëgg la am ci loo xam ni xañ na diine wàccu ko waaye aada ju fi yàgg la ah la ma ngi daa def nag am na ci loo xam ne def ko wàññiwu lu bari jamono léegi nag bari na luy xew ci jamono léegi cee tànk-tànk ak i erreur yu bari di wàcc. ñaar ñaar bëgg a tuxal def dafa mag ña la bëgg na leen yeneen ñu bees ndax nag wax dëgg yàlla lekk ci la ba noppi di këpp loolu dina joxul ko waaye xam la mag ñi lu ci jubloon ay léemaay léemaay la woon de léemaay la ci mag ñi jubloon mag ñi tam daanan wax naan bu jant bu jant balaa jant so timis bu jëkkee ci jàkka ci julli ni mu ngi julli ji bu sëmali di ko fekk ndabul cere ji tege boobu ab këll ab xar këll ci la def cere ji cere ja leen ko daa mooñ léegi nag cere da nga dem jël ci marché ba rek am jaay mi cere tey tam xarit du loolu de li fi mag ñi nag bu ñu ko fi baan rek gis ko mag ñi danaan pare mooñ cere ji tay ko teg ko ci digg reeru bi dajale ñëpp li ci jubloo naan bu kenn ci àll bi ndax laal nga dala jàpp boobu xam ci jublu bañ xool ñëpp reeraloo benn bu reere ba nopp mag ñi ne toog ci diggante bi toog tàñ njaboot gi gu góor gi gu jigéen ñi soññ leen fàttali leen ñu ne ah, at mi jàll na de fukki weer ak benn jàll na ba fukk ak ñaar dugg na menat ñi war a ruuji ruuji ñi war a noori nooraani ñi war liggéey liggéey ñi war a defe leen defe leneen tàggat leen soññ leen ñu nag ci guddi gi sama ñi ñaar ñaar guddi gi lixlaas yi nga la dégg ñu bari ci ko nga jàngale nix yi nix may yu bari ci guddi gi nga jàngale xam ne guddi googu boo xoolee loo mag ñi daan këpp ak yooyu ak yooyu ak du dara ay la léegi nag diine dàq na ko diine nag moom daa gën a lu ne waaye lu coolee bari bari loolu ak barkee loolu ci loo xam ne mag ñoo ko bàyyi woon yàgg na tusmal dafa jaadu loolu moom jidani na ko dale mun tamaxarte ba xëy bi daa gis mag benn kol ko benn kol ko lu cere teg ko ci digg bool bi fanaanal ko ci mag ñi boo coraan sa ñaari mbaaram laal ko say at mi doo ci te yem na maanaa mag ñi ko wax de doo ci wànneen at mi lu mu gën ñëpp taajam moom géwél moom taxaw ci penc mu di gërëm ne ko fees ko jël ca la moom dem yoonam toggam yeexam naar amul loobe taaja moom ëllëg ñëpp ñëpp ko def moom géwél géwél doo xamee kenn guddi gi di nga dem bu guddi gi xaajee fa doo xamee kenn ku nekk ci góor baas am Thierno Faye solub taay ba solub sipp musóoru tus ngelaw ah di xooxe jigéen loolu ñàkk fayda la xam nga lu sam dakuru ko loolu affaire bu jigéen la ab gone bu góor gone bu góor bi dégg nga dem tam xoolal sol yére jigéen di jaay di jaay affaire jomba ñaaw jamono soppeeku ba ku ne di togg lu la neex waaye cere lañ ci daan baaxoo di ko reeree si guddi gi. comme ndax nga spaghetti baa nga macaron baa nga petit pois waaye nu cere lañ xam ne nu waa Kajoor nu Kajoor la dëgg ndànd la dëgg ndànd nu cere lañ xam ne cere cere ja du doon gajama du doon cere ji dugub la doon suuna nga soq ko wal ko fuuf ko sibati ko tay ko mu doon cere tay ko duguba ràcc ko laala ko teg ko daa ngi tabal yu bëree bëri tam ay barkeelu barkeelu yi lenn yàpp tabaski gàtt ma nga denc tabaski ga dañ ci ak seel wala wala ab yeel tabal ko ci ñeex mi barkeeloo ko yooyu yëpp du boo gisee xool ay léemaay la gi nga ceerno ci gudd gàtt mooy góor njaay la wax lii li fi mag ñi samp ko fi buñ ko bëggee jëlee andi problème am ci ko nag soobate sa maam la soobate sa baay weddi sa ndey weddi sa baay la waaye fa tara ko teel lislaam di dox waaye lu mag ñi nekk nit di l'islam kenn du ko jële fii ndax islam mooy lépp jamono métti lool ba am na ñu amul njëgu ginaar góor a njaay jàpp ni nag yi ñu daan jënd di ko bokkoo jot na ñu indi waat ko nag yow ci digg pénc mi ci ron wala guy ga lu su xëy suba teel xool ko ku ne nekk sa gër ko nay dew di ko taxaw tim naw yi gër bu taxaw lakasa takk laxasaay gi ren naw yi ndaw soo booba sa baawalu ca bare dëkk yi ñu yàlla mën a gan ngay borom teraanga jokk raw yónni ci dëkk bi su boobaa rek mu ñëwee ñëpp génn xool naw yi jàkkaaroo nay xool ko géwél yi rendi na yu fees ko fu nga fee toj baat bi toj bopp bi toj lépp mata ko nag ay mata ñi bu dee naw ni jaay tong tong la tong tong nag bokkul ak lu ñu seddoo tong tong mooy mata junni mata boo ko déggee day mat juróomi kilo bu ñu ko saamee kër gu mag bu ko déggee am basiru am wala Mouhamadou Ndiaye bu tegee am naram yóbbu këram da a xewlu loolu mooy mata yi mata junni wala mata juróomi téeméer du bokk bokkaloo ko bokk bokkaloo googu da day déer ma ne ndax ganaar ñëpp mënu ko am cee na fa maanaam njëgu juróomi ganaar Mouhamadou Ndiaye mën tam liber bu yàpp Basiru Fay mën naa am fa tarakalaahu gëleem sax ab gàtt wala bay rendi biir këram Basiru Amar waaye keneen amu ko léegi bu bokkee nag naawee yow ko ci ko pénc bi rendi ko ñëpp di ko xooloon loolu fees ko nag mata ko ñu bokk bokk loo ko kenn ko tegg sa nar yóbbu sa kër kenn du ko waat kon loolu dellu si waat ko day baax dafa jot bésu tamxarit xew-xewu diine yu bari xewoon ci tax ba saa su dellusee ñu ëpp ci jullit yi di ko màggal fii ci Sénégal ñi ko fiy màggalee ci diine ak aada loolu nag di indi xalaat yu wuute ci boroom xam-xam yi